asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la docteur Ndiaye Diop di nuyu di sant ak di gërëm waa Ibadatu wal Xidma yëpp euh, di jiital ci nuyu bi Serigne Khadim Diop mu tegal ñu ko ci ñëpp ñuy liggéey ci groupe bi borom xam-xam yi imaam yi docteur suñu mbokk docteur yi nekk ci groupe bi di ñaanal Serigne Mountakha. yàlla may ko fan bu gudd ak wér ak sutura naal yi mu naal yëpp mu yeggale ko ak euh, ñépp fekke alhamdulillah am ay laaj yu fi jotoon ñëw ci wàllu euh, kër docteur am na benn mbokk bu doon laaj ndax tuur bu ndox bu bëre dafa euh, wane ni da am jabet suukar wala dara tuur bu ndox bu bëri ay façon la euh, yi nga xam ni day niru jabet day fekk booba toujours dañ koy delloowaat ci yeneen yi muy àndal du doon tuur ndox bu bëri rek ndax tuur bu ndox bu jabet dañ naan la euh, du jegewaay bi mais boo demee da ngay tuur quantité bu bëri waaw bu jegewaay gi rek mais quantité ba day bare euh, day day ñëw lu bëri daal ba nga xam ni ndox mi daal lii nga tuur daal bëri na muy ànd aussi ak euh, souvent xiif di xiif xiif gu metti di mar-mar gu metti ak di bëgg lekk lekk tuuti bala mu yàgg nga xiifaat boole ko nag booy buy tuur ndox ndox may bare lool bokkul nag ak tuur ndoxu boo xam ni souvent mag ñi am prostate booba tuur ndox ba day yoo tuur ndox bala muy am ñaari waxtu nga bëgg tuuraat ndox guddi gi ngay dugg ñaari yoon ñetti yoon loolu ci mag souvent du question jabet mais boo demee di tour réservoir ba da nga dul tuur lépp ci qui fait day gaaw a feesaat ki am jabet nag moom dina tour lépp day gaaw a feesaat ndax li muy produire ci ndox moo bare li rein bi di bàyyi muy wàcc ci ndox moo bëri moo tax muy dem lu bare waaw loolooy wutale tuur ndox yi bu dee tuur ndox koo xam ne nag naq bi dafa futt lu ci laal rek mu bëgg koo génnee bu ko defee tour ndox bi day jaweyoo day tour ndox léegi bala muy amaat dix minutes rek mu daal di koy pressé nga xam day gaawantu bala mu yegg tuuraat ndox bala mu toogaat tuuti safaat dem tuur mais bu demee tuuti lay tuur te léeg-léeg day metti te mën na buy jeex indaale tuuti dara boobu mooy ñi nga xam ne dañuy tuur ndox mu jege mu am infection euh, beneen bi mi mbokk muy laaj affaire ndoxum siti euh, ndoxu siti moom Euh, dafa bëri luñ ci wax ci wàllu tradipraticien yi te euh, ndoxum siti boo koy xool dañuy mel ni ku naan la dermatologie te dermatologie ay junni junni feebar la yoo xam ne bokkuñu lu leen di faj bokkuñu lu leen di lu leen di indi euh, bokkuñu ni ñuy def ci nit ki ndax bu dee ku sa yaram xasan ndoxum siti la ku sa bët di xasan ndoxum siti la ku sa biir di metti ndoxum siti la ku say tànk def picc ndoxum siti la ku de donc liñ ci boole daal moom daanaka mooy li tubaab di naan fourre mooy loo xam ne lépp nga dëxañ ca biir kenn mënul xam lan la euh, kooku moom mooy ndoxum siti kenn mënu laa wax ne lii mooy ndoxum siti donc bu doon dermatologie la nga ne mënul bokk bara garab ndax ay feebar yu bare la yu feeñ ci biir ak ci biti ci wàllu dermatologie donc ndoxum siti daal moom daanaka kenn xamul lan la lu nekk la ñuy dugal ci biir bu dee kenn mbokk muy laajte jigéenu wérul ak tànk ak yaram buy néew yi surtout tànk yi néew yi loolu moom plus de quatre-vingts pour cent yi wàññiwul dara surtout bu fekkee nag dafa feeñ ci weer yu mujj yi ndax jigéenu wérul yaramam day soppeeku yaram day soppeeku soppeeku goo xam ni day faral di téye ndox ndox mi ci yaram da ciy téye lu bëri day faral di aussi deretam day yokk daanaka da naan bu fekkoon ni euh, trente pour cent dafay yokk ci volume sanguin bi cest à que liy sidditu deret yi di duy ci deret day yokk ndax ay am ndox mu ci dolleeku placement beeg yooyu ba nga xam ni loolu yëpp suñu boroomu ko def pour préparer jigéen wérul xam nga buy am doom day nàcc nàcc googu keneen ku mu doonoon ku dul fekkul am doom kooku choc lay doon ndax li ci génn mënul génn noonu brusquement ci nit rek te indilu ko gàllankoor suñu borom nag def ba nga xam ni jigéenu wérul bi dafa mel ni préparé nañ ko ci nàcc boobu muy nàcc mu bañ ko bindil gàllankoor sauf accident leneen lu ci bokkul donc yaramam boobu nag day gaaw a yi ndax day gaaw a téye ndox mi bu ko defee boo tollee foofu dañ lay wax naan la nay faral di doxantu bañ di toog rek ndax toogaay bu yàgg bi euh, da koy favoriser am yaram tam daf koy favoriser donc pour bañ muy faral di am dañ lay wax dell ak tànk yi te di bañ di tegalee tànk di booy tëdd nga jël ngegenaay bi def ko ci tànk yi loolu dina tax muy wàññeeku euh, mais nag bu fekkee ni neew yi gi dafa gaaw ci ay fan ba pare neew yi lool bu boobaa dañuy ragal mu ànd ak lu mel ni ay hypertension gravidique mooy tension bu yéeg loolu c'est très dangereux boobaa dangay daw hôpital ñu seet ko ndax euh, néew bi gaaw na ci ay fan rek mu néewi ba pare mu boole kook euh, di fat wala mu boole kook aussi euh, yeneen signe kooku na daw hôpital ndax mën na nekk tension te loolu maladie bu graaw moo ci am bu ne ndax toxémie gravitique nga xam mën na dem ba xëmloo ko mooy mu mu mu mu tàggoog sagoom nga xam ne urgence lay doon donc loolu tam def ci am ñu koy moytu am na bokk bu doon laajte ci wàllu entrainement ak euh, koor gi ndax buy seetlu buy entraîner day am point de côté xam nga koor moom entraînement ñi koy saytu dañuy wax souvent ne préférable nga koy def avant ngay dog c'est-à-dire que boo demee ba nga xam ne des na tuuti ci dog nga def foofu entrainement ndax boobaa loo attanul doo ko def te boo naree am problème dog dog na ba pare euh, wala boo ku dog toog ba guddee guddi nga doog ko def sa tuuti entraînement mais xëy suba def entraînement mais def ko heure boo xam tam dafa sore doog wóorul ndax da ngay déshydraté te doo mën a naan tout suite donc bu fekkee da ngay entraîné daal def ko heure boo xam ne doog soreetul nga xam ne presque boo entraîné ba pare toog 30 minutes tuuti dal doog jot kooku nga mën a naan ndox mi nga soxla mais doog ba pare euh, doog euh, entraîné ba pare doog jotagul wala euh, lekk ba suur di entraîné loolu tam gënul beneen bokk ngir laajte ni ñi nga xam dañoo am asthme ak am sinusite ba pare war a takk masque ndax amul risque ak yooyu euh, xam nga takk masque moom pour prévention la donc du toujours nga koy takk bu fekkee da nga nekk si biir oto yow dong wala nga nekk si néeg yow dong wala nga nekk sa kër ak yooyu yëpp mën nga bañ a takk masque mais boo nekkee foo xam ay mbooloo dafay daje ay nit dañ fay nekk di waxtaan wala dara wala nga dugg oto wala fópp daal foo xam ni ay mbooloo moo fay daje yow da nga war a takk masque boo ko mënul nga moytu mbaaloo mais lu ñu war a def moom kenn mën la ko teggil ndax la la cay fekk la cay nekk fekk ñëpp la cay fekk nga am asthme nga am sinusite te xëy na ci yow lay gën a metti ka keneen ka donc yow yaay xool nooy arrangé woo bay takk masque mais daal boo demee ba xam ni mbooloo mi yaa fi nekk te mënoo ko takk nga génn mbooloo ma nga bañ faa yàgg di fa toog Euh, am na mbokk mu doon laajte ni day faral di am ay weex-weex ci diggante tànk yi euh, ñu koy wax ci tubaab intertrigo wala pied d'athlète yooyu ay ay feebar la yoo xam ni ci xeetu champignon yi la nga xam day taq ci euh, diggante yi nga xam ni souvent ci baaraam yi loolu itam hygiène bu bu baax dina ko dindi am na produit yuñ ci def pour fu pharmacie pour faj ko mais boo jëloon ndox. nga jël quantité eau de javel li ñu naan un dixième euh, maanaam fukki xaaj yu nekk nga dolli ci benn eau de javel euh, nga koy nettoyer tànk yi ba mu set boo ko defee ay fan rek di nga gis mu dañ parce que eau de javel dafa ànd ak luy rey doomu jàngoro donc boo ko defee bàyyi ko ba mu wow nga nettoyer ba mu set bàyyi fomp ko ba mu wow boo ko defee ay fan da ngay gis mu dañ loolu moom ay dermatose la am na beneen bokk tam bu doon laajte xam naa ci la ñuy jeexale ne day faral xelam di tey surtout bu demee ba am 15 jours ci euh, weeru koor bi mais xel muy tey moom souvent dañuy ragal nga am ay saan ndax saan tamit dafay faral di indi yu mel noonu donc dañ lay conseiller nga jël garabu saan boo ko jëlee boo toogee ñaari semaine 15 jours nga jëlaat ko ndax euh, saan souvent day indi euh, day indi saan euh, souvent euh, boo jëlee garab bi bu toggee deux semaines danga nga koy jëlaat ndax bu fekkee dafa amoon ay nen nen yi souvent dina toog deux semaines doog a toj doog a kiyaat yenn saan yi donc bu ko defee bu boobaa lam loo rayoon bu loolu màggee ci diggante bi di nga ko mën a rey donc euh, yooyu laaj lañ fi amoon di sant ak di gërëm ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah